acca salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi nuyu nañ leen bu baax ziare leen amaat mbégte ak kontante jàkkaarloo waat ak yéen comme ça su nekk nu ñu koy defee ci wasaare société tey nag ni ngeen koy gisee nii ñu ngi fii si rond-point case bi li ñuy waxtaanee nag mooy vaccin yi nga xamante ne ni ñëw na ñu bëgg xam rek ba xam gars yi ndax dinañ vacciné wu am déet waaye tamit euh, du ñu mën a xuus si wax ji du sore sore dañuy ànd ak sama caméraman bi rek ñu daal di xool gars yi ba xam vaccin yi ba xam nan lañ wax nar demee noonu kaagu acca bu baaxee rek ñu daal di dem asalaamaaleykum sëñ bi nuyu naa la. maa ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm. sant alhamdulilah. noo tudd. Diouf Teranga. Diouf Diouf yëg nga ne vaccin yi ñëw na. vaccin yi kañ la ñëw. barke démb. man maa ngay soor a yëg si yow. waaw si yow bu ñu la fekkoon fii ne la di nga vacciné wu di nga vacciné wu yow. man du ma vacciné wu. ah xanaa ñu reyante rek ku ma jàpp ne dag mooy vaccin moom dañu reyante ndax lii sàmm sama wér gu yaram man xam naa ko mais du vaccin man xam naa ko nekkul lépp la ñuy wax yow mi xam nga lii sàmm sa wér gu yaram yow yow doon yow nangoo ku la vaccin yow man bañu ma de parce que dañ ne kaay kaay wër lañ wax kaay wër. kaay wër yow doo vaccin yow. barki alxuraan doo vaccin yow mi koy laajte doo vaccin. yow doo vacciné. yow yow yow yow garantir sa bop yow doo vacciné yow xam nga lan la déglul rek sëñ bi man xaaral xaaral ñu waxtaanee ko yow garantir sa bopp yow neel man xaaral xaaral. yow mi koy laaj doo vaccin. maanaam du vaccin sa mag du vaccin. yow xam nga yaa ngi yow yow eh kii mën na nettali sama gént man mi dëtt gént sama gént yow nga koy nettali. man ma xam man ma xam sénégalais ah. sénégalais lu muy laaj moromam yëpp moom du ko mës a def yow doo vaccin sa rakk du vaccin sa mag du vaccin seen waa kër kenn du vaccin. Ah, léegi léegi yow loolu foo ko teg. man de vaccin yi laa la wax de bu demoon ba Saalum mu fekk ma sin kër ku fa dugg na da ngay vaccin dañuy reyante mais doo dugg. yow foo teg ne yow doo vaccin wu dugal ma ci man dama vaccin wu. waaw a sàmm doomu aadama loolu day rey nit ñi sàmm doo doomu aadama da leen rey yow doo vaccin sama morom doo vaccin wasalaam. Mati laa tudd. Mati yëg nga ne vaccin yi ñëw na. waaw ah, dégg naa ko ci télé rek gars yi di ci commentaire. Hmm. yow di nga vacciné wu. non vaccination bi jotagul bu jotee rek dinañ vaccin. Hmm. yow daal bu tey bu ñëwee fekk la fii ne la dangay vacciné wu di nga nangu. non bala may nangu damay gis lu tax may nangu mais yaram doo ko joxe noonu rek ñu di ko pikiir ndax parce que loolu yombul ndax xamoo pikiir bi pikiiru lan la. yow lan nga war a gis pour nangu. ah bala may nangu kay fu mu ne nii day leer ndax Sénégal yëpp fu mu ne nii gisaguma benn sénégalais boo leen pikiir mënuma ñëw rek sama yaram dékk leen ko ni leen am vaccination bi na daal sama yaram moo loolu mënu nekk. lan moo nekk garanti bi yow pour nga vaccin wu. ah pour ma vaccination bi pour ñu andil ma ko daal ma vaccin wu a ah, dañuy tax dañuy wane daal li tax. li tax sénégalais di vaccination bi mën a dugg seen yaram dañ koy xool ba pare parce que mënoo tëb tëb rek vaccination sa yaram no loolu moom yombul moom sama waa ji loolu moom nañ xaar ba ci kanam daal waaw nañ xaar ba ci kanam chéri man loolu laa gis nañ xaar ba ci kanam parce que tëb tëb rek un bon jour rek ñëw ah dañ la war a vaccin no loolu yomb na trop des mun a trop sax jaboot sax jàmm mooy mbokkam su ko bëggee su ko bëggul yëpp moom moo moom la soxla yal nañu yàlla defal jàmm daal nguuru Macky Sall bi suñu borom def ci jàmm def ci li gën waaw ki war a toog yàlla xam na ko ki warul toog yàlla xam na ko yal yàlla def daal li gën loolu la ñuy ñaan te yéen it yàlla defal leen seen liggéey barke gudd fan ak wér ñaanal leen yàlla may leen ak wér may leen lu kawe seen njott ba li ngeen bëgg ci seen liggéey suñu borom yeggali ko merci beaucoup merci beaucoup jërëjëf. waaye waaw Sine Fallou Fallou. Fallou yëg nga ne vaccin yi ñëw na. ah waaw vaccin yi gaan ak loolu bilaay ah bis ñëwee rek gaan gars yi ñàkk ko jël action bi waaw. yow naa bu ñu ñëwee emprunté na ñu njëkk de. ah loolu bu naa def de. waaw waaw waaw vaccin yi moom gaan gaan nu muy demee. ah dañuy leen rek. ah vacciner leen ah. ana gaan gaan du njëkk si man ah non non Ndiaga Zimane damaa ay day kii yaa ma a xam daal. waaw daa dégg rek. ko tamit doo essayer pour faju ah, waaw. ba ba ba tey nag. waaw nan bu ñëwee njëkkee si yow. non non du waaw non si gars yi njëkkee ba boole su ma bi. soo kii quoi xam nga waaw. merci beaucoup côté yooyu la. waaw Padois Padois salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. noo bi. Ah? waaw man la de bay Jiba. waa Jiba yëg ye vaccin yi ñëw. vaccin yi waaw yëg naa ko de. waaw mais. yow vaccin yi def naa mooy solution bi de. waaw mooy solution li ma gis ni de. waaw solution mooy solution bi moom. yow tey bu ñëwee ne la fekk la fi ne la vaccin dañ lay vacciner di nga nangu. léegi léegi léegi amu sax waaj. damay figéru léegi. waaw parce que man vac mooy solution bi fi mu mooy solution bi jarul sax ñu koy kii. incha allahu rabi tawfeex. vaccin yi ñëw nga yég nga ko wala yëgoo ko. yëg naa ko kay. waaw. tey bu la fekkoon fii ne la dañ lay vacciner di nga nangu wala dit non man kenn du mu vacciné. dama ko gëmul quoi. gëmoo gëmoo vaccin bi quoi gëmoo. gëmoo vaccin. moo tax gëmoo ko te ñu feebar baa ngi fi te vaccin yi buñ ko defee yàlla mën na dogal euh, feebar bi jóge fi. non man vaccin yi daal man kenn du mu vacciné te sama parents yi kenn du leen vacciné tamit waaw. a ah, vaccin man gisuma si loo xamante ni bàyyi moom loolu daal gëmuma ko waaw gëmuma vaccin waaw déedéet. tey kon ñi nga xamante ni ñoom nee nañ gëm nañ vaccin yi te nee nañ ñoom bu vaccin yi ñëwee tamit bu ñu leen nee tey tey dinañ vacciné wu kon yow àndoog ñooñu. non man ànduma ñoo xam ne d'accord nañ ci ndax liñ jékki-jékki rek indi Sénégal fii ñëw leen dañuy vaccin ni ñi mooy loolu daal waaw man moom ànduma ci moom ànduma ci tey ànduma ci ëllëg waaw. non kon xanaa yow bokkoo ci ñu bëgg feebar bi jóge fi. non feebar bi baax feebar bi man feebar bi gëmuma ko de. non non. ko te nga sol masque. waaw xam nga rek lu mu ñàkk la quoi natt la waaw. yow feebar bi moo tax nga sol masque wala police yi ñay ramas yóbbu la nga fay sa moo tax nga sol masque. waaw xam ga rek ñaari pëng yi parce que tey soo takul masque boo génnee fii gars yi lay jàpp fayal la ay 6 000 7 000 te instant dëkk bi dafa dëgër waaye xam nga yaa ma gën a dëkk bi neexul quoi man foog nga takk masque ak poussière bi baax na ci waaw ñaar daal moo tax nga takk. waaw loolu la waaye du feebar. non feebar moom gëmuma ko vraiment moom. oui feebar moom bàyyi gëmuma ko. yow sonn bàyyi dëkk bi dafa dëgër gars yi Macky a bàyyi bàyyi xam nga rek yaa gën a xam bàyyi couvre-feu bi bàyyi mu jeex nit ñi mën a kon seen liggéey quoi waaw. bilaay dañoo sonn bu ñu xoolal dëkk bi di liggéey bàyyi pour ñu am sa problème la waaw. loolu la quoi bilaay moom bàyyi nit ñu ko jégal rek waaw waaw ko jégal waaw merci beaucoup paa yi ñu ngi tiital nag ay wax seeg yooyu paa yi ñëwuñ wax seeg yi non paa yi ñooy njëkkee seen genre gi mooy ñooy njëkkee yéen yéen ay njëkkee si genre gi ñu ñooy njëkkee ah bon baay da ngay gis loo xam ne mooy loolu de fii kenn sëni ñu ma gis man sëni ñu bëri ànduñ ci daakuruñ ci daakuruñ ci vaccin bi non kii laa sëni laa waaw ma ne sëni sama am classe gi sëni ñu bëri daakuruñ ci vaccin bi est-ce am ñoo xam ne tey boo naroon a jël vaccin dem seen gaale vaccin boo yeggee ay ay problème la fay indi te am ñoo xam ne taxaw ne carrément ñoom ñu duñ vaccin c'est comprendre loolu la quoi. merci beaucoup. waaw tax tey ñuy waxtaan li nga xamante ne mooy biir vaccin yëg nga ne ñëw na Sénégal. waaw. waaw dégg naa ko si bi ñu koy wax waaw loolu laa ci dégg daal ñu wax ne ñëw na pour après dinañ ko dinañ waxoon ni ñi ñu ñu ñu vacciné wu. waa loolu daal laa dégg. yow tey bu ñu la fekkoon fii ne la vacciné wul di nga vacciné wu. fi mu ne nii ah je préparé si loolu de wax dëgg yàlla xam naa ne daal bu dee indi dem nañ ba indi vaccin yi lu baax lu baax la war a doon ci nit ñi mais toujours man bu may def damay waxtaan ak sama waa kër ba pare quoi munu ma ñëw rek comme par hasard fekk ñuy vacciner nit ñi may vacciner wu noonu loolu la affaire bi loolu daal il faut ma am lu ma leer si affaire bi. ma soog vacciné wu waaw. Ah. ñu gis na yaa booy vaccin yi vaccin yi euh, wax ji dafa jiitu daf fay jiitu ñii naan duñu vaccin wu ñii naan dinañ vaccin wu yow nan nga gisee loolu critiqué ci biir vaccin. xam nga man dama dégg affaire vaccin yi. Mhm. ma dugg si benn groupe whatsapp bi ma bokk di ci wax nit ñi naan leen ah vaccin yi dégg naa léegi mu ñëw de yàlla ñëw na nangam nangam. di si wax lu baax di après am na ñu may oo di ma naan yow li ngay wax xamoo ko nangam mais man lu ma lay lu may xam lan la. après ñu may expliquer ay yeneen affaire daal moo tax toujours euh, balaa may def affaire comme ni ma la léegi rek dama ciy waxtaan ak ay nit ba pare ba ñu ba ñu ma vacciné wu de mais nag il faut ma am lu ma leer ba pare. ko waxee rek nee naa leen ñu ngi fii si rond-point bi tey nag li ñuy waxtaanee mooy vaccin yi vaccin yi nga xamante ne dugg si na fi Sénégal comme ni am naa fi benn kilifa dama koy bàyyi rek mu daal di nuyoo bu ko defee ñu daal di dugg si waxtaan bi papa nuyu naa la. maa ngi lay fay sama doom. ci sant bu baax. noo tudd. man Moussa Ndiaye laa tudd. maam Ba yëg nga ne vaccin yi dugg si na Sénégal. waa ñun loolu dañ koo yàkkamti woon. bien sûr ñu ay Sénégal a bëgg a dem bëgg wér. ñu dégg ñu laaru médecin man da bu ñu xëyee nañ ma jël te man maay jëkk bi pikiru man ci kàttanu yàlla. kon bu ñu ñëwoon tey ne la ne la tey fi nga taxaw ni ñu la dañ lay vaccin di nga nangu. bien sûr lu may bañ pare naa li ma soxla ci nekk man fu ma dugg mën naa faa dugg wala damaa bëgg wér bëgg sama njaboot wér kon damay vacciné bu leen neexee ku ko yore mu ñëw commencé ci man dama la public ñëpp di ma maa ngi nii incha allah rek bu doon tey nangu naa. jërëj waaw ñoo ngi lay sant ndam ñoo ngi lay sant parce que doomu aadama war na xalaat boppam doomu aadama wér loo amuloo dara lan mooy sa aw ni réew wér amale milliard fi nga toog nga tëdd fa nii lañ la dawee ak say mi dañ naan diwa bari xat ndeysaan rek la ñuy wax kon amul njariñ nan fexee wér set santaane lii bu gouvernement bi santaane nan ci ànd ñoom du question politique du dara ñun farunu fenn ay chauffeur tax lañu kenn yërëmunu noo ngi nii fii la ñuy yendu aide bi nañ kon ñun lañ lañ ñu defal ñun nooy defal gouvernement mais gouvernement defal lu nu na xam loolu moom ñun ay safar la noog nitu ay boromi kër la nu ñu war noo dimbali kenn xool nu amuñu fu nu dëkk amunu dara dañuy luwee ngay daw bu bu wet kër goo dëkk ñaari at ñetti at ba ngay dëkk boo perdele benn borom kër commencé xuloo yow dañ lay génnee force ñu ngi ne ne wàññi nañ loyaas la tey la gën a yokk ana wàññi ba fan la feeñ nun danoo sonna àndunoo kenn ku tegu ci woon rek lan soxla ak wér pikir yi moom d'accord nañ ci cent pour cent ñun ñëpp buñ ne kaay nun du pikiru ndaxte benn lanu papa kon tey ñi ñi naan vaccin yi ñoom buñ ñëwee duñu wu kon tey ñooñu àndoo ak ñoom non lu waay neex defal ku dee yaa rey sa bopp kaay wér ngeen damay dee nañ la bàyyi nga dee loolu amu ay ànd ak nit amul ay ànd ak nit noo ngi ni bu nuy xëy danay raxasu bu demee su nga suñu doom dañ nuy daw ko am la papa dama raxasu ah papa yow doo raxasu yëpp da ngay sangu ah mais imagine say doom di la ko foo toll dafa neex nga daan dugg sa biir kan ñu di la xëccoo di la jëkkan tey boo ñëwee ko ne naan la ah papa bonjour ay do doomi doomi nuñ ko waxee doomi baykat kon ñun ay baykat la mais suñu doom tubaab lañ ndax fii lañ juddoo àdduna dafa métti li fi ne kenn du ko wax ku bëgg la wér yaa xam ku bëgg a wér demal pikiru ji ñëpp say morom nit ñi mën a amante jàmm di duggante di génn nii ñuy daawante baaxul métti amul njëriñ jërëjëf Mariama Mariama yëg nga ne vaccin yi ñëw na. waaw yëg naa kay. yow bu ñu la fekkoon fii la dana ay vacciné di nga nangu. ah xanaa ma gis loo xam ne doy na ma su ma gisee loo xam ne doy na ma moom waa mais su ma gisul lu ma doyul moom ah gëmu ko de. gis lu la doy comme. comme par exemple ñu wane lu leer boog comme ñoom ñoom ñu bëgg a vacciné wu ñoom ñu bëgg indi vaccin bi ñu njëkkee ko ba pare ñu filmé ko teg ko teel ba ñu xam ne lii dëgg la. yow bu ñu ko defee yow bu ñu ñëwee si yow di nga nangu. kon tey ànd ak ñi nga xamante ne nee nañ nanguwuñu même bu ñooñu defoon moom bu ñooñu vacciné wu woon sax ñoom duñu vacciné wu ñëw ànd ak ñoom. waaw ñoom moom sax xam na peut-être seen xalaat moo gàtt rek mais suñ gisee suñ gisee ñoom ñu vacciné te dara dalu leen war nañ mën a vacciné wu. waaw yëg naa ko waaw gis naa président Barke de moom damay aéroport di ko jëlee jot naa jot déglu discours am tuuti am lu mu si jot a wax noonu. waaye maa ngi buñ la fekkoon fay tey ne la dangay vacciné wu di nga nangu. ah vaccin yi da nga xasee ñëw nee na il faut wu kay ah ñu ko moo gën a moo fi sës man su mu ñëwee moom ma xam ne moo fi sës def ko moom mënut a ñàkk ma def ko yàlla moo xam moo yor dund moo yor moo yor dee waaw su dee ñëwee ñu dee su dund ñëwee daal man dinaa ko def man man gëm naa ko man daal gëm naa ko waaw. kon nangu ànd ak ñi nga xamante ne nee nañ vaccin yi du ñu vacciné wu ñoom. waaw xëy na ñoo ñooñu ñoo gëm la corona am na rek mais corona am na dafa am xëy na ñun ñii jeune dal nañu dalatuñu mais du feeñ ndax ay xale lañu léegi suñu dalee ñu wér ñu dem fa ñu faj ko suñu wér ko wàll ko suñu yaay yi suñu papa yi koo gis bàyyi na yaay wala papa wala maam kër ga soo ko wàllee feebar dal ko mu faatu boobu yow yaa ko lor mais ñun mën nañoo dal ñuy dox ak moom ndax ñu jeune lañu ñun dérange wu ñu sax waaw. merci beaucoup. ok baax na si jàmm yow. ku la fekkoon fii tey ne la def lay vacciner nu muy demee di nga nangu wala. non vaccin yi moom ginnaaw comme que ñëw na rek te gars yi ba doonoo bëgg feebar bi jógee fi moom franchement man moom lu ma ne moom sew ñëpp vacciné wu quoi man moom loolu laa gëm quoi franchement. parce que feebar bi lu mu gàllankoor moo bari te ñun ñëpp xam na lu ñu bëgg ak lu ñu bañ defe naa ni moom ñuy seetaan suñuy mag moom di faatu loolu moom doonul lu rafet quoi parce que feebar bi gone dina ko yor ba wér te du ko lijjanti te mag moom daal dina ko faat. vaccin yi moom nit ñi dinañ ko vacciné wu mais bu ñu dee vaccin nañ ko njëkkee rek si mag ñi mag ñi nga xam ni wéruñu wéruñu nañ leen ko njëkkee rek ba pare après nag ñu commencé ñëw si xale yi ndànk ndànk France. ka tey mag ñi tamit duñ ne nañ ko njëkkee si xale yi. ah même mag ñi tamit bu waxee loolu tamit ñun tamit nan maasale lépp rek. yéeg nga ne vaccin yi ñëw na. vaccin waaw. buñ la fekkoon fii ne la dañ lay vacciner di nga nangu. man. man da bu ma forcé woon sax duñ ma duñ ma vacciné waxuma laa ñu bàyyi man kese ak sama sago. lu tax bu ñu la woon doo vacciné wu. vacciné magum jëm magum jëm kon la man ñu naan dañ lay forcé pour xanaa xale yi sax kenn forcé kenn leen. mais pas forcé mais dañ leen faju te vaccin yi dañ ne mooy faj corona bi. waaw mooy faj corona bi avant corona yan feebar ñoo fi nekk avant corona est-ce que wax nañ kenn kaay faju te pourtant yaa ngi dégg ay milliards chaque jour di dugg yaa dégg ñuy détourné ah façon feebar bu nekk nga fa ñii am nañ moyen pour faju ñii amuñu moyen pour faju comprendre nga léegi yow boo bëggee ñëw xam nga jël say vaccin kenn xamul vaccin yi nu mu vacciné woo kenn xamul foo ko jëlee xëy bis rek ne dañuy forcer ñëpp pour piqûre leen man na ma ne nit ku nekk sa sante ak sa bakkan kenn gënu la ko bëgg. du boo toogee sentir sa yaram loo xamante ni soo ko sentir kenn du la wax dama faju boo amee moyen di nga dem faju boo amul moyen nag di nga débrouiller noo def ba yàlla saafara ko mais man gëw ay vaccin quoi te ku ma xam tamit dama la digal nga vacciné wu. vaccin yi nag indi nañ ko ki ko fi indi comme li gars yi di wax rek bi affaire yi ñëwee moo wan gars yi ni ñuy raxasoo comprendre nga ne l'heure est grave moom nañ jël vacciné vaccin yi ñu vacciné ko moom vacciné ci ay waa këram ak ay ministère am xam ak ñi ànd ak moom ñëpp. xaw buñ buñ la vacciné ñoom ba pare ñun sénégalais nañ toog ab lu yàgg même bu dee ay 10 ans sax suñu soog a ñu xool ba ñoom résultat bi après dana lay def si ñoom ba pare kuy vacciné keneen kuy accepté moom xam buñ ma rayoon sax duñ ma vacciné buñ ma rayoon laal wax ma la may dund de buñ ma rayoon sax duñ ma vacciné non non. merci beaucoup. waaw ah, ok merci. ay eh, vaccin yëg nga ne dugg si na Sénégal. waaw dégg naa dégg naa ñu ne dugg si na Sénégal. bu ñu la fekkoon fii ne la di nga vacciné wu est-ce que di nga vacciné wu. man moom ama par personne du ma du ma vacciné wu. moo tax doo vacciné wu. Ah, bala ngay def dara da ngay xam lii lu mu doon ak moom lan lu ci lu nekk ci biiram. Hmm? tey vaccin bi dañ bañ ko vacciner corona bi dina wàññeeku xëy na mën nañoo am njottu ko ba rafet ne corona bi dina fi jóge sax. waaw léegi euh, mais man corona wu ma nag dañuy seet ñi corona ñu def leen ko mais man képp koo xam ne sax déggal na ma. du ko sax jege parce que d'ailleurs bëri na bëri na ay wax avant que ñu koy indi fii waaw. yow daal doo vacciné wu daal say njaboot du ñu vacciné. du ma vacciné wu du ma ko digal kenn aussi franchement waaw. jërëjëf merci beaucoup. de amul solo. ok jërëjëf ñoo ngi leen di jaajëfal bu ñëpp defoon comme yéen vraiment euh, dina baax parce que dëkk bi lu mel ni la manqué woon aussi quoi waaw ah, waaw parce que aussi ñu nekk fële war a dégg li ñoo xam moom la ñu war a def. te lu mel ni moo tax ñu mën koo dégg ñu mën ko gis kon li ngeen di def ni am na solo trop ñu ngi leen di ñaanal mu doon ay télé yu bare bare bari jërë jëf comme niñ leen ko waxee woon sànq rek ñu ngi fii si rond-point case bi liñ doon waxtaane nag mooy vaccin yi nga xamante ne ni dugul suna si réew mi am na ñoo xam ne nag jot nañ leen a taalal suñu micro ñoom nee na duñu vacciné wu am na ñoo xam ne ñoom nee nañ tamit dinañ vacciné wu loolu xëy na ñoom ñoo xam li tax ñu ne ñoom duñu vacciné wu ñi ne tamit dinañ vacciné wu xëy na ñoom ñoo xam li tax ñu ne dinañ vacciné wu loolu ñoom ñoom ñoo ko xam di leen jaajëfal bu baax a baax leen rendez-vous ba beneen yoon incha allah nee naa leen saa su nekk nii lay demee ak wasaare xew-xew boo am rek dañuy daal di wàcc ci terrain bi gisee ak askan bi laaj leen seeni xalaat parce que ñoom tamit yoon la ñuy joxe seeni xalaat ñu laaj leen seen i xalaat ñu waxtaan ak ñoom euh, daal di koy wasaare jërëjëf kàggu sama caméraman bi ba beneen yoon incha allah jaajëf.